yéen a koy gisandoo looñ <laughs> ci mën a wax. ça c'est mon mon jeune frère et ami mon camarade Moussa Taye un des plus proches collaborateurs de. Khalifa Sall du maire de Dakar. mon aîné et camarade mon responsable Khalifa Ababacar Sall. toute la vie durant et même au-delà il restera le secrétaire général des jeunes que parmi lesquels j'étais il restera le patron du mouvement national des jeunes dont j'étais animateur d'une de ses sous-ensembles composantes d'un de ses sous-ensembles à savoir le mouvement des élèves et étudiants socialistes et ensuite c'est mon grand frère c'est mon camarade xam nga sa wolof day neex damay bëgg ngay waxi wolof waaw dama ne sama mag la moom euh, ki ma woon léegi ki ma waaw fii ndeysaan maa ngi gis Moussa euh, Moussa Camara moo nekk euh, na le téye loxo yi ci kanam hmm. ci ginnaawam laa taxaw man ah yaa nekk ci diggante Koso Lubu la léegi Camara bi moo nekk collectif de lutte pour les droits des victimes de la du naufrage du bateau Joola nekkoon Ziguinchor mu ngi al ba na ko yàlla jéggal. Euh, am na ku ku weex lii kii digg bi yore kaas bi. Mhm. il est secrétaire de ministère Abdoulaye Guèye Naas. ak ñeneen nga xam ne nii Abdou Diouf euh, voilà man maa nekk ci gannaaw borom tissu bu bleu bi ak Moussa. Mhm. seen gannaaw noonu sama bopp. ah d'accord yaay c'était à l'université Gaston Berger foofu laa ci promotion bi fa njëkk a dem fa laa bokk ci laa bokk. très bien ça n'a rien là. léegi ñu dàmbali waxtaan wi loolu lañ la doon teeroo Aïcha Pape Djibril euh, Marie euh, Fama bismillah